bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu noo ngi siyaar ñëpp sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi di sant seen Tuubaa di nuyu kilifa yi ak bokki taalibe yëpp xanaa nu yëkkati kàddu rek yu néew ginnaaw bu nu sant yàlla ñaanal Cheikh Ahmadul Muntaxa sama borom yàggal ko fi dolli ko wér bàyyi ko xelam. nuy masawu itam mbooleem fu ab taalibe ne mbaa ab jullit mbaa ab murit mbaa képp koo xam ne ki yàlla jàngoro bi àgg na fa ci àdduna bi rek noo ngi masawu ñëpp di ñaan yàlla sotti foofa jàmm sotti Sénégal jàmm ñëpp delluwaat ci seen sago ba nu mën a wéyaat jaamu yàlla Touba ci kanamit it gën a wéyaat liggéeyam bi ngir gën ko mën a àggale ndax kenn ku ne xam ne jamono toll na foo xam ne fi mu ne yu bare bari taxaw na ndax xel yëpp benn barab boobu lañ jëm muy luy dindi jaaxle gi yàlla na ci yàlla sotti saafara li may mm, dalalee xelam murid yi di ko dalalee suñu xel ñëpp te sëñ bi ñaanoon ko loolu koo xam sa xel war naa dal sa njort war naa rafet te xam ne ku ku jigéen yaa ci gën sa bopp waaye sëñ Tuubaa génn ci kenn te yaa sëñ Tuubaa daa waxoon ne salim te ahli wa maali wal xiyaari maxan minal wabaa'i wa ma xaaboo subhaanahu wa taala nga sama ñoñ musal sama alal musal sama njaboot gépp ci mbas épidémie mooy li mu nii xew fi loolu boobu kenn xamul li dina am ci àdduna alaxira maa xaabu nee na du am décision soy kon ñu ñaan bakki Seex Xaadim mu digoñu foofu yàlla waxoon na sallallahu alayhi wa sallam ne ko jamono ngi ñëw wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal juu'i wa wala samaraati wa bashiri saabiriin waaye allaziina izaa asaabathum musiibatun qaaluu wala àdduna naa li natt su wel nattoo lu wel nattoo lu ragal mooy mooy épidémie bi xew nga xam ne kenn gis ko do ko lam daj ko doo xoo gis ko du la te ñëpp ragal lañ ko ñëpp ngi tiit daw kenn ko yaa ngi mel si defe ne yow yaa ko taq te gisoo ko loolu mooy mooy ragal yi wa naq si mel amwaar nit ñi dem nañ ba économie daanu kenn amatu dara wala an si nit ñaa ngi dee ay centaine de personnes mille de personnes yi wax par suuf mooy mooy faatu loolu yàlla waxoon nañu ko wa samaraat dem ba bekkoor am garab yi dee dara mi ñu da amatul loolu agsi nañ si bakkan ñëw mi ngi noonu allah rek yem ci yàlla tey jéggul yàlla tey toroxlu ci subhaanahu wa ndax yàlla wax na sallallahu alayhi wa sallam ko maa kaan ma ma maa laa yuasi wa anta fihim man du ma leen ginnaaw yàlla du ma leen bëgg yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk yaa ngi seen biir waaye xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innaka maytu wa innahum maytuun day faatu kon yàlla mu ko yàlla bu fekkee dem naa nekk fi sama xel noo leen def mu ne ko maa kaan laa yuasi wa anta fihim du ma leen figal wa maa kaan laa su ma su ñëpp yàlla euh, dellu ci yàlla te jàng xasidu Sëriñ Tuubaa def jàng alxuraan karim sëñ Muntaxa waxee woon ndax bu doon ay moyens rek tey jii rek am na comment téléphone nekk Amérique wax na ma tey jii ñu fa def ñu faatu kenn toll génn vidéo wan ma ko ne ma gisal teen tant sax ñoo faatu kon nga xam ne yàlla amu dara yooyu ñu ay milliards yooyu waaye nag am nañu gëm kon nañ delluwaat ci li nga xam ne moom buñ ci delloo rek te mooy ñaan yàlla buñ ci delloo yàlla jéggal mi nag ñu masaw mboolem adduna bépp ni ko sëñ bi leeral léegi ci nattu bi nga xam ne ni moom la suñu borom wàccee muy jàngoro ji fi nekk te mu mel ne ba suñu borom di wàcce aaya boobu te sëriñ bi jàng ko léegi day mel ni jàngoro ji moo taxoon ndax mbooleem lu suñu borom tudd ci aaya bi rek tase na ci jàngoro ji muy wala nablu wannakum bi shay'in min al xawf wal juux wa naqsi min al amwaali wal anfus wa samaraat waaye wa basiri sabirin lazina isa asaabatum musiba xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di sant sunu borom bi nga xamee ni moo ñu boole kilifa yoo xam ne nii ba mbir mi daal di xewee rek li njëkk a def mooy jaar ci sabab bi saaxir yi te mooy fagaru ak wut lépp loo xam ne nii ak wattandiku wut lépp lépp loo xam ne dana tax ñu mucc ci jàngoro jooju waaye nag def li nga xam ne nii moo gën a wóor te suñu boroom santaane ko ndax moo waxoon ne eh, ak yàq dana am ci géej gi ak ci jéeri ji yàq gu wér a wér goo xam ne nii ci mi ngi sababoo ci loxo yi doomu aadama yi waaye nag buñ delloo ci yàlla suñu borom teggi loola chahral fasaadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas li yusi xooxum baxdal lazi amilu ndax la mbir yi xoon te lu jiitu woon loolu waxoon na wala nusixannahum min al-azaabil adnaa wa al-azaabil akbari la'allahum yarji'uun kon ñu ngi sant sunu borom ba mu defalee kilifa yoo xam ne nii ba loola amee rek daan ni ñuy jiitu ñun ñëpp ñu delluñu sunu borom ba sunu borom wàcce jàngoro ji te am na yaakaar ci ne ni ko sëriñ bi waxee rek balaa yàgg lépp dana dana dana saafaraw incha allah kon ci kaw loolu tamit ñoo ngi massawwaat waa adduna bi waaye rawatina sunu bokki taalibe yi nga xam ne nii ak bokki jullit yi ak mboolem mbindeef yi nekk ci diaspora bi yëpp ndax tukki rek ni ci yonente bi sallallahu wa sallam waxoon ne tukki aw dogit la ci mbugal safara xitxatun min al-azab rawatina nag ab sénégalais bu tukki dem bitim réew sars yi day gën a yokk jafe-jafe yi gën a yokk ngay tabax kër yoo xam ne doo ci dëkk di defar lal boo xam ne doo ci tëdd ñam woo xam ne doo ci xewlu yooyu nag boo ca booleek ñu tëj la sa kër ne la doo génn loolu dara gënu ko métti waaye ñu ngi leen di masaw bu baax waate xam ne ñu ngi ànd ak yéen nattu bi nga xam ne moom la suñu borom tegee waaye suñu borom waxtu bu wàccee ab coono rek dana ca teg ak ak jàppandal say jixaalullahu ba'da husrin yusran kon ñu ngi leen di masaw bu baax a baax